باسم خليفة العام للطريقة القادرية الشيخ بوسيدي المختار الكنتي أيده الله ونصره ci kàddug Cheikh Bou Sidil Mokhtar xalif général des cadres mu jaarale ko ci sunu jëmm yi ñu ànd koog njabootam gi yëpp mooy joxe ndigal di woote bisu boppam muy bisu gàmmu Njaasaan di bisu juróom-ñaareel ginnaw ganek aduna ngeen gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ku ne xamna ni sallallahu alayhi wa sallam sunna lolon na ngénte waye mom jëmmam jooju abdul muttalib di mamam di wujur abdullahi defalon nako ko abdul muttalib ci walu tarikh mo bokk ak ahlul kunti yi bi jihatil ab ci côté wajur wu góor sallallahu alayhi wa sallam di maami cheikh na cheikh Abdou Qadir Jeylaani mi maami cheikh bu Mouhamed Kunta di maami cheikh bu Naama Kunta mi ñëw Sénégal ci wàllu ci wàllu wajur wu jigéen Kunta am ñaari cër ci bokk ak yenent bi ci côté wajur wu góor ci côté wajur jigéen am sañ-sañu dundal sunna soosu kunta ba ñu sosoo ba sunu jon yàlla saa bu ngénte jotee di bisub juróom-ñaareel bi ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp ñu dajaloo sunnaal ko loolu la cheikh bu sidil muxtaaril kunti yi di dundal di ci woo ñi mu bokkal Seydina Muhammad yëpp mooy ay mbokki boppam di ndànk mi nga xam ni fa la bu Mouhamed Kunta sosoo ak ñi bokk ak cheikh bu Mouhamed Kunta cheikh bu Naama Kunta di sanc buuna di ndeer di guyat ak mboole seen dëkku kunta yi nga xam ni ñi ngi ci réew mi yëpp di woo képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di si jiital ci woote boobu ñi mu bokkal diine ji dañu koy taxaw te ñoom ñëpp seen maam yi nekkoon ay keno ci diine nekkoon ay jëwriñ ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di képp bu dëkk ci ab dëkk ab kilifa diine nekk fa bone nee Tiwaawan alxaaj sëriñ Babacar si almansour jiite njaboot ga ne sëriñ baa koy ziar di ko ndokkeel ci taxawu gim ko taxawul juddug maamam bërki démb ca Tiwaawan ak mboole seen njabootu sel xaaju Maalik si di woo di ndokkeel di ziar Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci limu jóge 18 safar bi mu taxawu taxawul len ko ñom ñep taxawul ko umma islam bi mi ngi koy ziar diko ndokel diko ñaanal di al haj cheikh Ibrahim cheikh tijan Niass ci lewna ak khalifa Medina di khalifat cheikh Ibrahima di serigne mahi Niass dëkk ci kër gi ci taxawu gi mu taxawu bërki démb ca Kaolack gàmm gu am solo gi nga xam ne def na ko fa ak mbokkam mi nga xam ni du fi jóg xelam xalaatam ak kàddoom yu rafet di Xasan Seck di sëriñ Xasan Seck xalif général de Thiénaba alxaaji Mouhamed Sakhir Njëgéen bu kër sunu kër maam alaaji Njëgéen waa Amdullahi suñu wa kër maam Abdou Cissé waa Fass Touré waa ahlullahi suñu waa kër maam Limaamullahi ak mboole seen réew ne dëkke Casamance di waa Daari Salaam ak njabootu ahlul kunti yi ya fa nekk ak mboole seen ahlu jaaxanke yi nga xam ni ci ahlu kunti yi la ñu aju kon mi ngi woo islam bi yëpp di woo diina ji yëpp di wax ni édition bii ñu jëm muy xew-xew bi cheikh bu Mohammed Kunta mi ngi ko donne ci wajuram cheikh bu Naama Kunta cheikh bu na Naama Kunta 1800 la fi ñëw 1808 9 ci la sanc ndànk kajoor muy ndànk naar di sept kilomètres diggante ma ngay mexe cheikh al di taawu cheikh bu naama moo njëkk a gàmm ca ndànk wuutu woon wajuram ba cheikh bu naama ñu di ko doxal ba cheikh xalifa ñëw di ko def ba cheikh sidil muxtaar mu cheikh bu naama di ko def ba cheikh bu Mouhamed Kunta mii ko ci ñoom di ko def kon bii dañ naan cent quarante et un édition waaye déedéet ëpp na ko waaye fii ci Njaasaan ren mooy téeméer ak ñeent fukk ak benn di gàmm bu ñuy gàmm kon yaakaar naa ne bu ñu amee lecture ahlul kunti yi bi ñuy gàmm gàmm kenn taxawalu ko fii ci réew mi ngi woo ñépp ci bis boobu euh, di woo képp koo xam ni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na lu toll ni tarfatul ayni ci sa xol bi te loolu boo koy wax ci Sénégal doo ci fàtte mukk ñi nga xam ni ñooy waa kër sunu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall nga xam ne am na taxawaay bu dëgg ci diine lislaam doonoon mujahidul akbar di woo sunu mbokki bopp yi nga xam ne sunuy doomi bàjjan lañ ñu bokk ak ñoom tariqatul qadriya di ahlu Cheikh mohammed al Fadal Haydara keur gi sen keur la dëkk bi sen dëkk la mbokk gi ben la ndax kat yalla ko njëkk defal yenent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ndax annabiyu awla bil muminina min anfusihim yenent bi mo gëna a yey ci jullit ñi ci seeni bakkan ki gëna a yey ci yow ci sa bakkan nak buñ koy wooteel loo xamante ne si ni dañuy fësal sunu cofeel ak sunu mbégte ci moom comme na ko cheikh Mouhamad al Buuna Kunta waxee jaa sururu wal marax wan zaaxa kawkabu tarax isbaana jeylamul farax an unsurin mutaharin jaa sururu wal marax googu nag ci lañu ñu nekk di ci di ci di ci góorgóorlu ngir wane ni bis boobu kat lépp luñ ko jàngal ci alquran ndax kat alquran moy dusturul ëwal waye lépp luñ ko meuna defal ci salatu ala nabi salatu ala nabi moy li nga xamni mom la yàlla defay direct te du ci fay bor te du ci jël bor mom salatu ala nabi jëf ju nit def yàlla mën na cee fay bor ci jëf ju bax jooju wala jëf ju nit def yàlla mën na cee fay bor ci ko toñon waye salatu ala nabi yàlla da koy bàyyee képp ku koy def te bis bobu li ci gëna fess te gën ci mag moy sunu ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fessel ci ñuy salawat jëmele ci mom ak lépp lo xamni ni xeetu xam-xam la ci ndigalu sëriñ bi commission scientifique bi mingo nañ ci njital oustaz mohammed babu ak ñim ko àndal ñep ci tem bu am solo tem bobu nga xamni buñ ci yame mën na defar sunu aduna mën na defar sunu alakhirah ndax temu alquran la yàlla wax ko. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نانيو ديمبلنتي تي لو باخ تي بير اك تي بيتي تا مايتو دي ديمبلنتي تي سافان لا تخ سونو بروم بي واخو نك تعاون لا اندي اندي اسم اندي عدوان واي كن دنج نان كان موي ديمبلنتي كان موي ديمبلنتي تي سافان انكاي dimbalante ci safaan moo xew ci réew mi ndax nit dina nekk di def safaan nga war koo dimbali mu génn si nga gën ko ci encouragé wax safaan xalaat safaan jëf safaan ay nit ñi ngi ciy dimbalante loolu lañu yàlla tere moo tax sëriñ bi joxe ndigal ni tem boobu nañ ci waxtaan dimbalante ci lu baax nag muy nit bu nekkee ci yoon wu baax dañ koy dimbali ci lépp nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na unzur aqaaka zaliman aw mazluman kon nit ku ne am na ndimbal bu ñu lay dimbali ci ñaari fànn yëpp loolu waral thème boobu sëriñ bi joxe ndigal ngir ñu waxtaane ko commencé nañ ko nag depuis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna di dimanche bii passé mu gane àdduna ba tey Ndiassane mi ngi gàmm ñi ngi traité thème bi fii si jumaay Ndiassane ju mag ji ci rawdu Cheikh bu Mouhamed Kunta bi di ci waxtaane thème boobu di fa def ay salaatu ala nabi di woo nag ak jaaru xabla daar dëkkandoo lu am solo la gàmmu Njaasaan du gàmmu Njaasaan gàmmu commune Chérif yoo yëpp la waaye gàmmu village yi nga xam ne dañoo dëkkoo nag Cheikh bu Mouhamed Kounta dëkkin bu rafet tey ñu dem ba village yooyu Njaasaan mëdd ko mu bokk ci biir Njaasaan doon ay quartier sëriñ baa ngi leen tàllal loxo ci lépp luy yéwénal gàmm gi ci dalal gan yi ci yaatal kanam yi ci bale kër yi ci nek ci service gan yi ndax ki ñuy gàmmulkat di sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni ki gën ci nit ñi moy ki nga xamni mo leen di liggéeyal kon nak li ñu sunu borom bi dik motax cheikh bu mohammed Kunta mi nek ci bir di cheikh bu Sidi Moxtaar di xalifatul am li tariqatil qaadiriya bëgg a woo jullit ci lan ci inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا يلا مو يني يننتي بشاهدا بالحق ومبشرا للمؤمنين ونظيرا للكافرين كن آه، بس بيبي بس بمقلة اسلام امه اسلام waye bis bu mag la ci ahlul kunti kon serigne bi mi ngi ñaan kep kuy ñëw na sa yene sel ndax am niyatu qabla al amal nit na am yene lata muy jëf yene ji nak moy ñu yarat suñu bop xamni yenen yenent bi la ñuy seeti kuy seeti yenent bi nak sallallahu alayhi wasallam orma boy ormal sa kilifa bi la meññi di sa wujur wu góor ak sa wujur wu jigen ndax wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana waye nak bëgg yàlla mo gëna raw bëgg wajur waye bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna raw bëgg wajur bëgg sëriñ sëriñ bo mënti yaakar ci kaw suuf yenente bi mooy sëriñam kon buñu ñuy seeti bi di dem ci kër yenente bi di gàmmuli yenente bi nañu ànd ak yar chauffeur ci sëriñ bi neena nañu daw ndànk ndax jàmm ci le rep xaj te jàmm joju moy lan mooy jiital yar jiital dal jiital teggin ndax jàmm mën a wàcc ndax bëri na luy dal nit ñu naan dogalu yàlla la déedéet ndax yàlla nee na bëri na loo xam ne da leen dal ci ay musiba bi maa kasabat la wax ca la ngeen fàggul la seen bopp yàlla taxawul pour sàkk jaam yi ba pare di leen fitnaal ndax daf ñoo teral wala xadd karam naa ba ni aadama kon nañ leen na chauffeur si séddi yàlla cër ci li ñuy dawal jëm Njaasaan di indi pèlerins yi ndax ñu mën ñëw ci jàmm dellu ci jàmm hmm. euh, cérémonie officielle bi nga xam ni saa su nekk daan nañ ko taxawu mu doon ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi natt ni diggante tàkkusaan ak timis dafa xat te nag bokk na ci faratey julli an niyatu yéene ja nga yéene ni maa ngi julli waxtu wi waaye ne at tuma niina wal i'tidaal te mu gis ni tumaaniina eh, i'tidaal googu ci diggante takkusaan ak timis ñu ni timis jot na nañu arrêté cérémonie bi xëy na dal googu ak teey googu du ci am moo tax ren mu joxe ndigal ni cérémonie officielle bi ñu ngi koy def dix heures ci suba ba une ndax nit ñi mën a nekk ci ak dal kon mi ngi woo mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp gàmmu Ndiassane dimanche la le vingt deux septembre incha allahu tolloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmm waaye sëriñ baa ngi joxe ndigal ngir ñun ñëpp euh, ñu ñëw fanaan si ci samedi si ndax ñu mën a teel a xëy commencé ci euh, euh, liggéey bi ba tax na njabootu presse bi ci njiital Ousmane Gueye ci njiital Ousmane Gueye mi ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax a baax a baax ndax euh, liggéey bi ku ne xam na ni yombul ba tax na euh, bari na loo xam ni waroon naa nekk ci njëlbeen ga waaye li tax mu xaw a am tardement ñu koy jéggalu bu baax a baax a baax ci sama tur di ko jaarale ci Cheikh al Bekaay mi jëwriñu kër gi ndax ñun ñi nek ci wetu sëriñ bi xam nañ ni bi wéru gamu téro yendalu ñu fanaan lu comité presse bi ñatt nañ ñu ay yoon ngir ngir ñu jàllale li nga xam moy déclaration bi waaye tok benn bis bo xam ne nekkuñu ci ay urgence mo amul woon ba taxna déclaration bi melni lu xawu a yéex rien n'est jamais trop tard dara du wess kon Hein? Euh, euh, euh, lépp loo xamante ni waajal nañ ko ngir gi communication muy lu bëgg mu jàll lépp ci comité de presse bi ñuy jéggalu itam bu ngeen xataayu xataayu presse bi nga condition yi nga la presse di nekkee sunu yéene mooy presse bi nekk ci ay suite présidentielle ba keroog ñu dem waaye nag lu baax mooy yombul ndax ku ne xam na ni li gën a metti ci farata yi mooy aj màkka te aj màkka yàlla rek lañ ciy wut dem nañ ba ñu sunna boo dee dem jumaa yoon wa nga jaare booy wañeeku jaareel beneen yoon ndax jéego ya ngay dox yool ba gën a bari kon coono gi ngeen fii daj yëpp yiw

fii ak déwén incha allah lépp jàpp nañ ni ci barke sëriñ bii nekk ci biir di xalif général bi di Cheikh Ousseynou Mokhtar yàlla dina ko jàppale kon sëriñ bi mi ngi woo ay rakkam yëpp nag commencé ci kër Cheikh al Bekaay mii taawu Cheikh bu Kunta ba ci Cheikh bu Mouhamed Kunta mii caatu Cheikh bu Kunta bi mu woowee mbokkam yi mi ngi woo ñëpp ñoo xam ni aju nañ ci ëllëg Kunta yi ngir ñu ñëw teerale ko ay ganam teralale ko ay ganam jàppale ko ci bisu bii nga xam ne amul lu dul moom muy bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi bokkoon na ci ay recommandation tabala sunna la ji'u bi adadin wa madadin wa tubuluhum hunaka tuula amadi tabala sunu moomeel la ñun ahlul kunti waaye tabala sunu moomeel la ñun tariqatul qadiriya waaye waxuñu ay xiin waxuñu ay mbëmbës ay tabala lañu wax sëriñ bi joxe na ndigal ak comité d'organisation bi ak ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi ak agent de sécurité yi fi ñëw ci bépp kër goo xam ne ña nga fa nekk di sabaru di tëgg ay batari yoo xam ne mi nga wut ak tariqa bi mi nga wut ak kër gi bu boobaa nag falaatalumu nii wa luumu anfusum bu kenn yedd ña fa ñëw nañ yedd seen bopp ndax serigne bi aduna aduat aduat ba adu ko ci kanamu presse bi yep ñep di ñew kuy ñew ndiasan da ngay indalé tabala kon ñi ngi ñaan gamu ki ñu jëm yalla nañ ci yàlla yóbboog jam eh, ñu dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim te genn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin ci ñaan kep ko xamante si ni nga fi yalla fajj sa aajo ndax eh, eh, gamu amul benn benn benn benn benn benn euh, li ñu naan tubaab naan feedback luy dellu siwaat ci ci ci ci ci ci ci sëriñ bi wala liy dellu siwaat ci pèlerin yi gàmmu si lu dul leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk nañ jamono joo xam ni jamono ju lëndëm la jamono ju doy waar la alal bari na développement am na waaye barke ngi gën a wàññeeku lu nit nek rek te amu ci barke amu ci leeru yenen bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu soti dana jafe kon sëriñ bi dal mi ngi joxe ndigal ci képp ku fi ñëw muy góor muy jigen ndax jàpp nañ ni Njaasaan du ay talibé qadir ño fay dem rek Njaasaan umma islam ño fay daje ndax gam sous région bi lay itam ndax malien yi nga xamanteni ñoy premier compagnon du cheikh bou mohammed Kunta ay junni junni maliens ñooy ñëw tàbbisi si dëkk bi bi di ñaan ñu yaatal leen ci yoon wi gambien yi nga xam ni ñooy chance su cheikh bu Mohamed Kunta ndax cheikh bu Mohamed Kunta benn yoon la mës a génn réew mi te Gàmbi la nekkoon nekk fa alfu lay la di fa jaamu yàlla am fa njaboot bu yaatoo yaato yaatoo cheikh bu Mohamed Kunta jaar na ci liñ naan island d'esclave d'esclave di île d'esclave bi nekk diggante Gàmbi ak Guinée dem ci Guinée am foofu njaboot itam am Burkina Faso njaboot am Mauritanie njaboot te ñooñu ñëpp dañoo bokk si gàmm gi di di rot si fii Ndiassane mm-hmm. kon ñi ngi ñaan nañu rafetal col gi mm-hmm. jigéen ñi nañu rafetal col gi ndax du ñu dundal sunna ba pare di roy di sunna mm-hmm. te col gu yiw du sunna farata la ndax sunu borom bi subhanahu wa taala mo wax yenente bi niko waxal say njabot ak jigéenu jullit ñi yut nina alayhin la wax ci sen man jàll nañuy sol lu yiw lo xamante sini sen seen du feñ te al mar'atu kulluha awra ma ada al wajh wal kaf kon buñ la baye tolore ngir ni rew mi tëddee ak ni aduna tollu nga sol ciol bu yiw go xamni du exciter góor ñi ba tentation lu ñaaw di am ci foofu waaye dëkk bi nag dëkku orma la naka ngay ñëwee dëkk Cheikh bu Mouhamed Kounta bëgg a sol loo xam ne yaa ngi mel ni ku war a dem ci dancine ba loolu c'est inacceptable sëriñ bi joxe na ci ay ndigal ci force d'ordre bi ak soldaaru Cheikh bu Mouhamed Kounta yi ak jamaa bi ñu saytu loolu jigéen buy ñëw boo mënta sol lu yiw sëriñ bi jéggal na la gàmmu gi nga toog sa kër gàmmoo fa kon daal mm-hmm. euh, sëriñ baa ngi ñaan yàlla nañ ci dugg ak bisimillahi rahmaani rahim te yeggali kook alhamdulilahi rabil alamin di wax ni itam suba incha allahu ci alxames ji mi ngi leen di yëgal ni doomam di président de la république nee na ko da koy gane si muy woowaa dëkk bi yëpp ci dal ak yar ak teggit ndax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa te gan gu toll ni président gan la Mhm. niñ ko mën a teralee mooy jox ko sunu xol leeral ko sunu kanam ànd ak dal yar ak teggin mhm. ngir ñu teral ko teraanga gi sëriñ bu bëgg mhm. kon loolu daal moo doon loolu moo doon kàddu yi eh, di ñaan di ñaan réew mi yàlla fi jàmm wàcc cheikh bu sidil muxtaari kunti yi yéeneem ak yitteem ak bëgg-bëggam ak xalaatam yépp senegal ndax ciosanam azawat la waye Sénégal gi kat fi lako lépp fek Sénégal gi le Cheikh Sidil Muxtaaril Kunti yu xooloon yàlla wan koko mu wan ko Cheikh Oul Ama Kunta mu ñu fi kon sunu lépp Sénégal la Sénégal yàlla na fi jàmm sax nawet bi ñu dug yàlla nako yàlla barkel yi xew ci rew mi di ay ñaaw téef ak ay accident ay ray ak lu ne yàlla mi meuna safara Mhm. yàlla nañ yàlla saafaraal loolu tënkal ñu seytaane mhm. ba loolu mën a jeex ci sunum réew wasalaamaaleykum mhm. wa rahmatullah